maa ngi de Razak Seck premier vice-président ASC Amitié 2 alors nous ñu fi donne dañu euh, def un point de presse pour euh, ñaawlu terrain bien nga xam le Wadjaraf, la euh, Cheikh Seck particulièrement ak le maire de la commune Fann Amitié 2 avec Amadou Kan, président ASC Amitié 2 mi nga xam Mandam mandatam convention la ñu signé ñu ne dañuy exploiter terrain bi gis ngeen ni de ko je taxawaay yi ci am saisir autorité sous-préfet bind ministre des collectivités locales bind def nañu ampliation maire euh, commissariat e. donc euh, dénoncé nañ li nga signé nga convention bu ko maire di signer, dafa délibération municipale loolu amu ci concertation publique au niveau du quartier donc moom la dénoncé te am dinañu ci am ndam bu soobee yàlla. bon ki ne moo représenté quartier bi mooy Amadou kan di président oncave moo représenté woon quartier bi ci coobare boppam ndax mandat am jeex na. kenn mandaté wu ko moom président ASC la donc euh, yoon la woon mu dem waaye mandat am dafa jeex moo tax muy profité nii pour euh, def li muy def mën a continuer di wax ak ñoom ndax woote na fi AG bi nga xam ni wax dëgg.

Nous 2 millions pour ASC Amitié 2 2 millions pour famille 2 millions pour conseil consultatif et 5 millions 500 000 pour Miskin Amitié 2 Nous, ñu Amitié 2 amul miskin donc 500 millions, na ngeen nous avons jox sax ni fi nous man particulièrement dama Youssou dial bu ngeen amé xaliss bi nga da ngeen terrain bi ñi nga xam ni ñoom ñoom la soxal mooy jeunes yi ma ni donc da ngeen di téye seen xaalis woote xool ndaw ñi nga xam ni am nañ projet ngeen financé leen ñu liggéey fay leen ba ñu mën a financé waat yeneen i jeunes. Euh, tey je pense conférence de presse bii ñu def deuxième deuxième étape bi la ndaxte saisir nañu autorités yi saisir nañu kilifa yëpp ba sous préfet woote na léegi sax de euh, woo nañu suba 11h dinañu recevoir. xam naa pour déglu ñu ndaxte mu ngi mu ngi mëne ab enquête donc te noonu la ñuy def rek topp yoon wi ndax Sénégal réewum yoon la te yaakaar naa ni Macky Sall président Macky Sall euh, di dina nekk ci wetu askan wi te bañ a nekk ci wetu Massamba wala Mademba. waaw xam nga ku newul ci yoon lu waay yëngu rek day yaakaar ni ci kawam lay dal moo tax gis ngeen une vingtaine de gros bras ndaxte boo gisee ci quatre coins

te ñëpp gisandoo nañ ko bi mu ñëwee ñi nga xam ni mooy nervi yi dàq